ngeen jëf mbokku internet yi ñu sétan suñu site bi di firiinfo.com tay nak moy bëssu julli gi bëssu julli bi nak site bi di firiinfo.com daal di leen àggal ci bërepp yi nga xamanteni moy bërepp julle kay yi mu ñëkke fi nga xamanteni moy Grand Mosquée mom Grand Mosquée nak bëri na mbooloo bi bari daal di ñëw julli si fofu bo imam ba sax daal na fay def waxtaan bu am solo waye nak bari na mbolo bo xamanteni ni daal di leen genn ñëw ci Grand Mosquée julli moo tax tey grand mosquée dafa bari ay nekk loolu rawatina bërëb bii ni nga xamante ni mooy juma muxit ñu gën ko xam ci jàkka muxit foofu na nag bërëb boobu tamit loolu la mel ñoom tamit ay mbooloo bu bari génn ni daal di ñëw julli si kon nag tey loolu yëpp bu ñu xoolee nag gis ni ne mbooloo musulman bi yëpp tey daal li ñu gën a génn ñëw julli si démb nag amoon nañu julli waaye daal dafa mel ni ne fii nii si commune bu Koungheul wala département bu Koungheul loolu daal bu ñu koy jàngat gisuñ ko waaye foofu noonu ci Touba Koungheul nag ñoom naka tey liñ daal di julli nag ñoom nag nañaa fees del bari ay mbooloo loolu nag lu ñu koy gën a leeral mooy suñu site di firiinfos point com moo ñu koy gën a leeral wane ne daal julli gi daal la majeure partie tey li ñu julli démb nag amoon nañu jotoon a julli nag loolu ñuy gën ko xam ci ñi ñuy wax ibaadu yi ibaadu rahma ñoom nag démb lañ jotoon a julli ci samedi bi waaye nag ñu julli le dimanche bi nag ñoo jot ëpp fii si réewam Sénégal rawatina fii nii si département bu Koungheul ak commune bu Koungheul nag ñëpp nag ñoom tey liñ fas yéene daal di julli si dimanche ba moo tax imaam yëpp daal di waxtaan seen waxtaan yi am solo gën a yee ñi nga xamante ni mooy julli gi waaye gën a yee ñi nga xamante ni mooy askan beeg population bi rawatina foofu noonu fi nga xamante ni mooy Touba Koungheul foofu noonu nag si bërëbu julleekaay ba bu ñu fa àggee kii di ba moom waxtaanam ba nak daal dina si waxtaan lu upp nak ci mbiram politique wax ne jamono bi daal nu ñu def nank rek tepp rew mi ñun ñoko bokku bokk loolu nag foofu ñu ko xame fofu non si fi nga ni mooy Touba Koungheul si bërëbu kay bobu imam ba def na waxtaan bu am solo waye lepp rek suñu site bi di firi info gën ñu xamal ne mom timi nak mu ngi gërëm ñepp di remercier ñepp waye di sante ñepp di wax ñepp jaajeuf ak gaati ngalama ndaxante yepp daal di site bi di firi info daldi won na fa tew kon nak ñi nga xamanteni ni ñoo daal na dem ci julli gi fi di Gaxam mosquée fi di Jumaa Murit fi di Touba Koungheul ñom ñëpp dal ñi ngi leen di sant rawatina imam ñi nga xamanteni ni ñoo leen def waxtaan yi am solo yool noonu rawatina Sénégal nak fepp ñu ngi koy daldi rafetlu kon Sénégal dal li ñi wax rek ne wolof njaay ne Sénégal ben bop la kenn duko daldi xar ñaar ñëpp nak dañaa war a booloo ànd koy def benn bés kon nag julli gi nag naka tey tey la woon waaye nag lu ëpp ñu bari tey liñ daal julli fii nii si département bu Koungheul daal mën nañ jàpp ne julli gi tey la woon kon nag dimaas bi mooy bésu julli bi amoon na julli samedi waaye nag julli tey moo ëpp mbooloo loolu lañ daal di jot seetlu kon nag lu ci des ñu bàyyi la ngeen seetaan ko suñu site bi di firiinfo point com